aywa maa ngi koy wax sànq dañuy dem foofee ci diwaanu Sédhiou 7h29 euh, moo jot ci Ndakaaru moo jot également euh, ci Sénégal wërngël këpp euh, de quoi est-il le nom Sédhiou la ñu tout jeune doyen yóbbu muy Abdoulaye Cissé lay Cissé nag dox na ci biir Sédhiou xoolal ñu fa gox boo xam ne aw turam siiw na ana lan moo wan wundu tur wi itam fan la jógee askan bu fa nekk lan lañ ci wax tontu li lañ ci ànd ak Abdoulaye Cissé euh, dafa jël euh, gaal wala dafa jël roplaan loolu yëpp amaana dinañ ci indil ay leeral Abdoulaye nuy naa la. ñu ngi fii ci bunkiling bunkiling nag soo ko déggee làkk soose la bunkiling mun nañ ko tekkee ci benn néeg benn kër xëy na jamono ji ñu ko doon sos sañ nañoo njort nii benn dëkkuwaay moo fi amoon waaye bunkiling tey dëkk bu mag a mag la loolu nag danañu gëstu xool taarixu fu mu jógee fii ci boor yi mairie bi sax na lu ci nekk ñu daagu rek seet suñu gan sëriñ bi salaamaaleykum ñu ngi lay ziar bu baax na ngeen def naka liggéey bi ah yéen a ngi taaral mairie bi de ah mairie Bounkiling moom la ñu nekk nii Bounkiling sëriñ bi yow ndax xam nga Bounkiling fu tur wi jógee ak luy taare dëkkoo Bunkiling da nga koy liggéey si. Ah, waaye taarixu Bunkiling ndax xam nga ci fu mu jógee. xamuloo ko. yow dafa mel ni yaa ngi ci bëggoon a buruflu de yow yow yow loo xam ci Bunkiling. Ah, Bunkiling tur bi ak taarix bi yow lan nga ci xam. man gan laa yow gan nga waaye da ngay dégg Bunkiling rek. Ah. Bunkiling xam nga boo ko déggee ci làkk mooy benn néeg wala benn kër. waaw benn néeg. xanaa booba benn sanc rek a fi amoon. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jërëjëf. Euh, am na ñi xam ne euh, monsieur Tariq Bonkin. Uh-huh. ñoom ñu ngi fee. waaw ah, ñu ngi fee wax nañ sax alkaalo bi alkaalo moom boo ko déggee mooy boroom dëkk bi. alkaalo bi xam naa ni dañuy daagu seeti ko. moom xëy na danañu mën a gindi bu baax. incha allah jërëjëf. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Fatou. jaabi jaabi fati sise sise sise fati kota tanamte fati sise fati kota simla min jatima benta jaabina tere mo sama nan alkalo fe nata men nak ka bunkirin tarikho nyinin ka ndax mbe TFM lay alkaali Fati ñu ngi lay nuyu di la dalal ci télévision Futurs Médias. ñu ngi dalal jàmm. ñu ngi lay fay waaw ñu ñëwoon fii setsi si la. Bounkiling la ñu bëggoon xam Bounkiling moom. fu mu sosoo ak luy taarix yi. Nancy Diallo Koto Fati moo samp dëkk bi en 1951. 1951 hmm. moo ko samp. booba booba melul nii. melul nii. xanaa moom moo fi ñëw fàq fii. moo ñëw fàq fii moom mooy premier habitant. Hmm. dafa defee fàq ñu ñëw. am na fu mu jaar ak baayam. wante moom kese moo dëkkee. ak doomam lu tax mu tuddee ko bunkiling bunkiling boo gisee ñu tuddee ko bunkiling eh, boofu dafa sori lu tax mu sori depuis mu créé bu depuis mu créé dëkk bi day fekk moom kese moo nekk fi mm-hmm. mu sam benn kaas néeg mm-hmm. kaasoon dafa tabax am banko mu nekk foofu balaa ñu développé ñëw fii moom kese moo nekk foofu. Mhm. léegi gars yi bu ñu ñëw ñu fekk benn nekk moom tuddul ko de am nañu julaay yi wala commerçant yi ñoo ko tuddee. Mhm. bu ñu rombee ñu ne am na benn nekk bu nekk ci dëkk ci àll àll bi. Mhm. boo demee foofu nga xaar ma foofu. mu ne benn nekk boobu. boo demee ci barab bale nga xaar ma fi benn. benn ndéyge bu nekk foofu am na benn paa bu nekk foofu. Mhm. dafa am yaramante yaramante trop dafa am ay kii eh, bu nit. ku am yitte la ci nit waaw ci waaw. Mhm. léegi boo demee foofu da dalal mu jox ndox nga naan mu jox la lekk nga naan nga lekk ba pare nga sànq foofu noppaloo foofu ba ba nga soxla sa. mu la daal après nga continuer dem. Mhm. boo demee foofu nga xaar ma foofu mu ne fànn mu ne benn nekk bu nekk foofu moo tuddee buntu kon boog mat na sëkk defe naa suñu yoon bi ni ñu koy waxee fii ci dëkk bi suñu yoon neex na ñuy gërëm alkaalo borom dëkk bi di gërëm aussi Kabiru Jaabi bi nga xam ne moo ñu gungee gindi ñu ba ñu yegg si fii Bunkiling kon leer na taarix wi leer na leerlu nañu ko. ñi leen di gërëm di leen sant incha allah TFM dana leen doxantu jël feneen ak feneen ak feneen xamal leen ak taarixu dëkk yi ak gox yi nga xam ne yàgg nañ koo dégg te xamuñu ko bu baax jërëjëf. jërëjëf euh, euh, Abdoulaye Cissé Albarka notre jeune doyen. un euh, un grand voyageur.